suñu jaar jaar daal dañu nekkoon ne su ko xaari doon jar danaa mbokk internet yi nga xamne ne baxo top njami TV mo xam ngeen fete ci biir rew mi wala ci bitim rew ñu ngi leen ni fekk ba fi ngeen nek leen nuyu bu baax it leen jox seen eh, wàccuwaay. ñu and ak yéen nak tay ci bërepp bi fasiyene waxtaan ci tolluwaayu jamono ànd ci ak euh, Baye Demba di kenn ci taalibi Cheikh Moussa Cissé Ndiamé boroom daaru gën leen xam ci yàlla yàlla yi Baye Demba ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum sang bi ñu ngi lay siyaar di la duyoo nuyu bi di wax ne ñu ngi nuyu waa àdduna yépp ci seen tur ak seen sant di leen baalu àq ci weer wu tedd bi ñu jóge muy koor gi dinaa jël nañu ko yàlla ñu nangul ñépp euh, di siyaar suñu xalifa général. kulu murit muy Sëriñ Muntaxa Mbàkke di siyaare suñuy xalifa xalifa njàmbe daaru mooy El Hadji Keba ak rakam yépp di nuyu mbokku jullit yépp ci seen tur ak seen sant alhamdulilah sànq bi waaw Baye Demba gis nañ ne tey ñi ñu naw ci wàllu xam-xam ci biir réew mi doon leen déglu mhm. ñu taxayoon taxawaayu yeetekat mhm. di tere yenn jikko yu suufe ci biir doomu aadama li ci mel ni xëccoo xulloo ak yenn jikko yu suufe daal ñu gis ne ñoom seen biir dañuy toog ci télévision yi di ko defante ci seen biir ba xam loolu njàngale mu rafet la ci bëtu askan wi alhamdulilah comme jamono bi ñu toll mu nekk jamono boo xamante ni ñu bëri seede nañ ne dafa jaxasoo am xew-xew yi fi jaar yoo xamante ni mébétoon nañ ci askan bi mu bañ a demee noonu léegi comme ñu toog rek doon bokk ci ñi nga xam ne bokk nañu ci réew mi te doon fi ñoo xamante ni doon ay ndaw ci lu ëpp ci ndaw ñi mën nañu wax ne toppe nañu waaye jànguñu comme tey ñi jàng wala boog ñi xam tey jikko yi ñu waroon dindi ci askan bi ñoom biñ toogee jàkkaarloog askan bi ñoom jikko yooyu ñoom dañ koo wane au lieu ñu wax ko pour corriger ko askan bi ñoom dañ koo wane ñoom ci seen biir mu nekk nag lu jaaxal askan bi léegi nag tey comme xam-xam fi ñu toll nii ci ñuy wax ñi téere bi rot ci seen dënn te ñu waroon dimbale jaam yi ñoom dañuy doyalante comme ça dañuy xuloo ci seen biir est-ce que loolu arrangé na askan bi ñi nga xam ne ay waxtaankat lañ ci kër tariixa te jàng taarix bi bu baax di toog ak ak askan di wax est ce que amna nu ñu wara waxé ci tariixa parce que tay ku ci wax ci tariixa tuutal benn tariixa yëkëti sa boss kilifa tariixa ya ñu waxu kenn waxu du kenn waxu di ci sa morom lu ñaaw légui nak ñu né suñu démé bu aduna tollu fi bu ñuy bëgg a ci tariixa bi la bok diw li la def diw li la def bu ma yëkëti ay kaddu yu kawe ci mom bu waxtaan bi xoot ma yëkëti ay kaddu yu suufe jëmele ko ci kenen est ce que lolu la ñi xaar ci ñom loolu itam nekkul lu ñuy xaar ci ñoom moo tax jamono biñ tollu nii wax ji dafa bari waaye nag yow jaam bi déglu na yàlla doon sa yitte jamono biñ toll nii képp ku nekk ci àdduna na yàlla doon sa yitte te yàllaa ngi fi ku mu doon sa yitte di ci jot te ku jot ci yàlla di nga xam ne la nga xamoon ak na na nga doon gisee àdduna bokkul ku egg ci yàlla ñu dindil la kiiraay kiiraay boobu nag dem leen ci alxuraan suratul baqara aaya juróom-ñaar yalla moo yàlla moo fa wax ne am na ñoo xamante ni lu tuuti moo leen teree lu tuuti moo leen teree gis gon nag lu tuuti moo leen teree gis boobu lan la siru boobu lan la gon nag amul sikk ne jamono biñ toll nii fi muy li jamono bi di wone mooy na nit ñi dem xamlu ji seen boroom loolu la jamono bi wone fi jamono bi wone mooy li deug deug jaamu yalla la leen yalla wax ni moy lan parce que deug deug jaamu yalla kat jamono neena len, leen jumai, naa jumaa yi tëj naa gon lan moy jaamu yalla gon kat du Cheikh Moussa bi nga waxone julli du jaamu yalla ko du jaamu yalla sax mu ngi ñew jaam yi ñak nañ koy def to neenañ ay jullit lañ ba legi gon nak la Cheikh Rafal firnde won bu ñu wax ni ki di du julli du wor du asaka lolu nonu, dañuy jàngale ne bala ngay julli ak bala ngay wor dafa am no wara mel te lolu tank meloko ko ah meloko meloo ko yow melagoo ne neex yalla suñu borom te lolu itam so ci xese jot nak ñakato julli ñakato woor ñakato azaka ñakato aji màkk cheikh amadou bamba khadim rasoul du mom mo kaddu ne ku joge fi aji ca mak to nangulo ma man ahmadu yalla du nangu sa sa aj du lolu moko ko mu waxat ne malaka yi jël nañu kaaba gi indi nañ ko Touba te dootuñ ko yob du lolu sang bu tedd bi moko wax legi nak lan moy kaaba gi lan moy aji makka to sang bu tedd bi ahmadu bamba neena kaaba gaangi touba malaka yi indi nañ ko te dootuñ ko dello gon ban kaaba la kaaba bobu nak kep ku ku ci yàlla teggo ci sa askan bi nga xamanteni won soxla won nañ dimbal te kan molen len wara te dimbali ngir lu set seen diggante ak seen borom parce que ñi netti li bi yalla bi war ko wax jaam ñi amaana njàng bi jang biñ jang wuté nañ ci déggin ba nu ñom ñoom ñu tok au lieu ñu waxtaan ak jaam yi ñoom ñu waxtaan seen bir kenn ak kenn askan bi nak jaaxle bobu mom lañ jaaxle légui nak toppe bu ñu wara topé nak ngir gindé ko la lañuy askan bi nak kan la wara tok bu gindé ko jamanu jamono biñ tolni waaw bay demba yow nga japp ni jamono ak tolni ñooñu jàng nañ ci téere yi ba xam li téere yi bind ba am sañ-sañu toog jàkkaarloog askan wi di leen yëgal li téere yi bind ba xam yow am nañ yeneen jëmm yoo xam ne ñu ngi fii ci biir senegal te mën a leeral dënnu askan wi jox leen xam-xam boo xam ne dina leeral seen diggante ak seen borom waaw alhamdulilah xam nga dañu wax ne jamono fu muy toll dafay seede dëggub yàlla bi tey ci ci misal mën nañ wax ne ci côté bi ñuy jàng ñu bëri ésequé nañu foofu pour njàngale bi askan bi mais nag bu ñu fàtte pour nit ñi yeewu nit ki tànk egul ci boromam mënul yeewu léegi nag yàlla wone ne nekkul ne da ngay jàngal nit ñi ba pare dool leen yee kon ésequé nañ côté boobu waaye nak seexal mu rabbi ki nga xam moom xam boromam kooku noonu tey moo mën a jëriñ adduna bi nga xam ne du jàngale leen lu dul yàlla kooku moo mën a dimbale askan bi jamono bi ñu toll ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ba mu bëggee defar jaam ñi àndoon ak moom yéen mag ñi dégg ngeen bu baax ci taarix dafa wax ne dafa tasoon daaray jàngale daaray daa léegi sant daaray tarbiya mooy yar booba ba muy woote yoonu muridullaahi jàngalewul baax jàngalewul siin ña ña loola indi woon waxoon na leen ni ñi ñibbi leen man wooteetuma ci loolu léegi nag àdduna bi yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen defaru njàng baax na trop waaye nag wuuti leen xam-xam ban xam-xam mooy xam sa borom ñoo ngi koy amee nag ci kilifa boo xamante ni xam na yàlla te mën la caa eggale. waa Baye Demba sànq say biiri kàddu wax nga ci point boo xamante ni mooy egg ci yàlla. egg ci yàlla googu noonu jaam ñi ni ñu koy déggee bari na lool waaye yéen kilifa gi nga xam ne moom ngeen àndal muy seex Moussa Cissé dañuy faral di dégg ci kàddoom muy wax waxu gis yàlla ba xam ku yegg ci yàlla dina war a mën a gis yàlla Baye ba ñu bëggoon ngeen niñ ci ay leeral. waaw alhamdulilah waaw kaddu boobu doon na kaddu boo xamante ni kaddu bu lëmb jamono la mooy yàlla yàlla yi nee na dañuy gis yàlla kaddu boobu nag ñu bari suñ ko déggee rek. am na lu ñu seen xel yi am na lu mu leen jox que ndax yàlla day nekk ne yow nga nekk nii di ko gis xam nga ñu bëri weddi nañ ko waaye nag kaddu bi ñoom kaddu bi demeewul niñ ko déggee waaye nag ci gis yàlla rek ci li ñu mën a firndeel ci gis yàlla yow sooy dugg ci islam dangay seede ne dara nekk ko fi lu dul yàlla te itam soo ko weddi waatee sax yàlla moom wax na ci bopp ci alxuraan ne moom moo moo feeñ waaye itam moo nëbbu gun yàlla su feeñee feeñ na ci ki ko xam mais nag su nëbboo itam waa nëbbu na ci ki ko xamoon léegi nag ci a gis yàlla boobu ñuy wax maxaama egg ci yàlla maxaama xam yàlla dafa nekk loo xamante ni soo seedee ne dara nekk fi lu dul yàlla tawhid mooy nga kenal yàlla hadis ñi jàng ñi dañ koy nettali ñu koy dégg ci télé yeeg rajo yi hadis nee nañu yàlla nee na jaam bi su deñu di ma jaamu ah su deñu di ma jegeñ jegeñ ñu ah, su doxee jëm ci si man man ma daw dem ci si moom su dawee jëm ci si man man ma naaw dem ci moom ñu jaxasoo ma nekk tànkam ya muy doxee di loxoom ya muy jàppee di bëtam ya muy gisee kon loolu hadis moo ko indi te ñoom ñoom ñu ñu koy wax ñu koy dégg amaana gis yàlla yow mi koy weddi nekkul ni nga déggee baat bi waaye nag seedeel ne fii dara amu fi lu dul yàlla te dara amu fi lu dul yàlla nag moo la duggal ci diineem bi kon yow nan est-ce que di nga am est garab bi dina am est-ce que mala yi dinañ am kenn bi yàlla bi ci kaw nu bi nag kilifa bi nga àndal te mu mat kilifa moo lay woon ni yàlla moo ñoo alam bi ci leeram bi loolu nag kilifa su pareek yow ala kuli al sa bët yi day araamati nga gis ci ku dul yàlla sa noppi day araamati nga dégg ku dul yàlla sa yitte yépp yàlla lay nekka si sa cër yi yépp ngay delloo ci yàlla kon sa cër yëpp soo ko delloo ci yàlla bët dina fa am cër dellu leen ci yàlla balaa leen du delloo su ñu delloo lépp ci yàlla bët dafay am cër te bët su delloo ci yàlla dafay gis yàlla te fii nii dégg ngeen kilifa bu mag ni ko waxee ci téereem bu màgg boobu di masaaliku jinaan ku ñu wax Cheikh Ahmadou Bamba dafa wax ne këpp ko ànd ak kilifa bu mot kilifa dina la eggali ci yàlla këpp ko àndul ak ku àgg doo àgg mu ne pour nga àgg ci yàlla dañ la jox kalimatu laa ilaha illallah ba si ñëw sa kilifa wóolu la ngeen wéet ngeen tunante sëñ bi di wax taalibe bi di dégg sëñ Tuubaa nee na mu wax lay mbóot yoo xamante ni xaraam nañu ko bind ci ay téere mu ne ci mbóot yooyu comme ça yaatu nañu yaatu boo xamante ni xóot xóot boo xamante ni comme géej du mu xootee mu nekk xam-xam boo xamante ni du jeex te du amul yëmuwaay te ñoo ngi koy amee ci kalimatu laa ilaha illallah loolu kay xanaa kay leer na alhamdulilah noonu la waaw baat boobu de moom wax dëgg yàlla baat bu foor la Baye Demba ndax mooy baat bi nga xam ne mooy seede islaam képp ku dugg ci diini islaam baat boobu moo la ci dugal ba xam baat boobu noonu ñëpp a ngi koy wax waaye njeexintal gi muy def ci jaam ñi mel na ni wute na lu waral loolu. waaw alhamdulilah baat bu am solo la baat boobu mooy àdduna bi baat boobu mooy jàmm ji muy islaam mooy laa ilaha illallah waaye nag ci siru muhammad rek lay doxee kooku moo koy doxal moo tax sax dem nañu bu ñu ñen ñi di naan soo waxee laa ilaha illallah to tegoo ci muhammadu laa day gàtt waaye nag bu ñu fàttee itam laa ilaha laa wax daxoo laa sarika la ñëw na kon laa ilaha illallah soo ko waxee waroo cee teg dara kon ñaari déggin yooyu dafay am waaye mu ne kaddu boo xamante ni ñu bëri ñoo ngi koy wax waaye itam lu tuuti ñoo xam li muy firi moo tax kilifa bu mag waxoon na ko ki ñuy wax euh, insa dafa waxoon ne ñu bëri dinañ wuyu si woote bi waaye nag tuuti ci mbooloo mi ñooy xam li waral mbir mi. waa Baye Demba ba tey ci mbooloo mu néew moomu noonu nga xam ne ñoo war a xam mbóot bi nekk ci laa ilaaha illallaah googu noonu. ñooñu ana lan moo leen koy may ak ana lan moo koy xañ ñi nga xam ne ñu ngi ci diine gi. waaw alhamdulilah li koy mayee ak li koy xañee mooy ci jamono biñ toll nii tarixa boo dugg baat baa ngi fay jib tarixa boo jéblu baat baa ngi fay jib mais nag yow mi jéblu ci tarixa bi est-ce que yow ma baat bi nga fa wuti loolu moo indi mbir mi parce que baat baa ngi réer ci kër yi yëpp mais nag ñi ko wut ñi dem ci kër yi est-ce que ma baat bi lañ fa wuti. moo tax ñu tuuti ci mbooloo mi ñoom ñoo xelu dem laaji maxaama baat bi moo waral coow li ci jamono bi ñu toll. maxaama baat bi ana lu mu wundu lan la ak ñi nga xam ne ñoo koy ñooy soobu ji ci tarixa ñoom ba xam dañoo xamut lu ñuy wuti lan la bu dee ñoom xamuñu ko dina am kilifa yi ñu fay fekk. kilifa yooyu tamit loo leen di dénk. waaw alhamdulilah jamono bi ñu toll nii kilifa yi nga xam ne mbooloo topp na leen. te ñu nekk ci tariixa te njëlbeenu tariixa ba ña ña sosoon tariixa ba mbooloo topp leen kese kese taxu doon ñu sos tariixa ba mais ñoom ñoom ba ñuy sos tariixa ba di ñu bëggoon këpp koo xamante ni réere nga sa boroom soo jëwee ci ñoom ñu mot la ba yónent la yónent doon def ca jaam ña réere woon seen boroom ñi sos tariixa yi dañoo jaayante woon ak yàlla jaayante ak yàlla bu am maqaamam yonent woote ngir eggale jaam ñi ci yàlla ña leen wuyu si yàlla kese moo leen indi woon seen wasila ya wax leen yàlla ñu jaayante ak ñoom bu am seen ngërëm ñu eggali leen ci yàlla loolu nag silsila ba mooy dox ba léegi comme tariixa yi nag bari na mbooloo jamono bi ñu toll nii yow sëriñ bi am mbooloo du xamaloo leen seen boroom toogaatal ci sa bopp nga posé wu question ne ñii lañ lañ ma toppee ndax war naa leen eggali wala warul ma leen eggali yow mi dem topp ab sëriñ te xamalu la yàlla eggaliwu la ci yàlla yow posé wul question ni kii lañ laa ko toppee dafa am kaddu bu mooy faral di wax ma ne sëriñ danga koo toppee lu ko gën lu gën siñ bi nga ko toppee koo fekk mu toog nga ne jébbal naa la sama bopp àdduna ak alaaxira dafa am loo wut ci siñ bi te loolu moo gën siñ bi fuuf muy yàlla yàlla ci sëriñ nga ko mën a amee de ci sëriñ bu mot sëriñ nga ko mën a amee waaye nag yàlla moo gën a for sëriñ bi gun sëriñ bi mën ngaa donee ci moom lu ko gën waaye nag mënoo donee ci sëriñ bi santam bi mënoo donee ci sëriñ bi alalam bi waaye nag soo jaayanteeg moom bu am ngërëmam ngërëm boobu nag mooy dëgg-dëgg yàlla su fekkee eggali na ci te loolu mu ëpp sëriñ bi solo gun sëriñ dañ koy toppee lu ko gën muy lan muy yàlla waaw Baye Demba ba tey ñu wéy ak laaj yi ndax seen kilifa gu mag googu noonu nga xam ne mooy Cheikh Moussa Cissé dafa am kàddu yu xaw a diis yoo xam ne daanaka ku woyof dégg bu ko déggee dina ko dese comprendre ndax day wax ni julli du jaamu yàlla koor du jaamu yàlla natt asaka du jaamu yàlla mboolem xeetule sariyaar di rek daanaka moom nee na loolu du jaamu yàlla ana moom Cheikh Moussa moomu lan la jàppee jaamu yàlla waaye tamit ndax jamono seede na kàddoom yooyu mu doon wax waaw wala déet. waaw alhamdulilah jamono seede na ko waa léegi sang bi wax nga kaddu bu am solo boo xamante ni kilifa bu mag moo ko wax muy Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou waaye nag nañ bay xel ne nitu yàlla su kàddoo kàddu daa am lu muy xaar ca ñam ko wax dafa am ñu muy xaar ca ñam ko wax comme li ma ko waxee woon balaa ngay toj gémmiñu ma sàmba na ngay xam li mu wëlis Cheikh Moussa Cissé kàddoom yooyu mu wax am na ñu bëri ñu ko déggul dafay junj nit ñi ne loolu nekkul lu bon de waaye dafa am lu ko war a jiitu parce que loolu soo ko defee lépp ba dee te yàlla safara mooy sa kër parce que yàlla moo yàlla wax na ci alxuraan sax fa mu lil lii na nga xura nga ca safara ñeel nañ ñeel way jullikat yi kon nag gis nga Cheikh Moussa kiy jullito xamul yàlla la wax ne sa julli bii ngay def ne di ngay jaamu yàlla te réere ko tu nga xam ne soo soo ko jullee ba jóge fi te xamoo yàlla safara mooy sa kër kon julli boobu du jaamu yàlla koor bi nga xam ne yàlla nanguwu ko koor boobu nga wor ko boobu weer wi dee te amoo ci ngërëmal yàlla kon wor du jaamu yàlla kon Cheikh Moussa dafa kàddu kàddu bi pour bëgg a recadrer nit ñi lan mooy jaamu yàlla parce que Cheikh Moussa def koo kaddu waaye Cheikh Rafal te koo jëf ci yoonu murit bokk su leen su wax bi xawee lënt dellu leen ci kaddub seex Moussa bi jël leen ko ngeen def ko jëfu seex Rafal ndax di ngeen ko gis kiy def koo jëf kii wax ko moo tax kaddu la boo xamante ni ku ci gindeekuwul ku ci defu très attention da ngay surux dëgg bu wér péng la waaye nag léeb la boo xamante ni tegtal bi mbóot la képp ku gindeeku ci yàlla rek xamoo li sang bi wax comme sa egg ci yàlla niñ ko waxee comme nee nga dangaa gëm sa boroom ak koo mën a doon ah egg ci yàlla def laa war su fekkee ne moom sedd nga baatub seede bi dugg ci islaamu bi yàlla bi waroo koo dundee kumpa waroo koo dundee ñàkk a egg te itam nekkul ne far forcément soo duggee ci diine islam dangaa war a jàng far force amuñu fu ñu ko wax ba nit ki ñi nga xam ne lu ëpp ci askan bi jànguñu léegi nan lañu mën a def bu am àjjana xam nga ne ëpp ci askan bi jànguñu lu ëpp ci àdduna jànguñu te yàlla nee na ajana laay fayee ju baax léegi nag gon comme bëgg nañoo dem ajana te lu ëpp ci ñun jànguñu léegi ban ban ban yoon lañ mën a topp bu am ajana léegi yow su ma la déggee am na yoon woo xam ne mu ngi fii nii te ci diine ji la nekk ci diine ci diine diine gi la bokk jaam mun cee tegu jaamu boroomam ba am ci ajana amu sikk te loolu mooy yoon wu weex bi lolu moy tawhid lolu moy wetal yalla lolu nak munuñ ko amé ci yeur téré yi téré yi liñ ci bind moy tektal yi téré yi tektal yi lañ ci bind so topé tektal yi so goré ding fi bay tektal bi wone dem dem top lim la wax lolu motax tax suñ la ne waxuñ ne jang baxut waye jang def lay joxoj jang dafa am lum la joxoj parce que muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla njëkke wut a njëkkee ci moom rek wax ko ne dama lay jàngal téere bi kon moom ci xam-xam la woote pour nit ñi jariñu nag il faut que ñu wuti xam-xam ban xam-xam mooy ñu xam seen boroom loolu mooy question bi nga xam ne àdduna bi yépp dañ ko war a posé wu question nan la nit ki di war a def bu xam boroomam parce que yàlla posé na ñépp question kuy jullit yàlla posé na la question parce que yàlla moo la wax ne jaamu leen ma waaye nag njëkk nga may jaamu xam ma kan la yàlla waxul loolu yàlla question boobu ñëpp la ko posé kon nan la ñuy xamee suñu borom est-ce que xam li yàlla wax ak xam yàlla bokk na déedéet moo tax nit ñi nag nañu dem xamlu ci seen borom ci kan lañ koy xamloo ci seexal mu rab yi kan mooy seexal mu rab yi mooy ki xam yàlla te egg ci yàlla te mën caa eggali jàmm moo tax yonent yi ba ñuy wootee dañuy wax ne laa ilaha illallah dara nekku fi lu dul yàlla kaay leen ñu yóbbu leen ci yàlla lii mooy de mooy sangu jamono ah maanaam kon suñ la déggee daal sangub jamono jooju noonu mu ngi fi te jógu fi waaye ñu gis ni mbooloo mi li ci ëpp yeewuñ ci côté woowu waaye nag ci téere yi rek lañ yem ndax santaane yi wax dëgg yàlla ñu ngi koy def kenn nu mu waree ñu ngi julli ñu ngi woor ñu ngi natt asaka ba ci weeru koor wii ñuy génn defee nañ ko kenn ni ko suñ borom santaane ah ñu gis ne nag nga junj ne am na leneen lu nekk ci ginnaaw loolu donte kat yi dañuy faral di wax ni lepp lu am euh, lu feñ am na lu neub lu mom. mom ñu bëggoon a xam wër tago. wi di taggo ndax am na lu méngoog mom té mu neub jaam ñu umpale ko ak kan na koy xamle. waaw alhamdullilah comme li nga wax lu am solo la comme té li ñi li ñi gis wax ni ki di judit la lolu lolu mën nañ wax le sharia la lu dabe la lu ñu organiser la comme ça té suñ ñëwé ci julli koor azaka aj lolu da fay nek ay point yo xamanteni dañuy firndeel ne ki ci li la bok mais nak ki ci islam la bok mais nak islam nit ki mënu la rombarom ni rek nga gis ga bi ci li ci lu feñ ci biti mais nak ci mbiru ci mbiru biir ci mbiru biir lolu kenn du gis mais nak su fekke ci mbiru biti su waxtu bi joté nga jëmmaat dinañ xam ne julit la légui nak ñuy lancer appel wax né comme islaam bi nga xam ne moom la yàlla soxla ci jaam bi bésub yamal xiyaam ndax islaam mooy julli ndax islaam mooy koor wala mooy aj màkka wala mooy azaka islaam leene ay ponkam lañ mais bokkuñu parce que yàlla rëbb na jullikat rëbb woorkat rëbb ajikatu màkka rëbb kuy joxe azaka kon képp koo xamante ni ñeenti ibadaat yépp yàlla rëbb na ci jaam mais islam ku ko ko indil ajana nga jëm léegi islaam nag est ce que njëgam njàng la njëgub islaam du jàng parce que islam yàgg na fi tu njàng amul te islam sax moo njëkk ab njàng waaw xam-xam moo njëkk jàng. nangul àdduna li muy wax waaye lépp lu ñu nangul nangul àdduna itam bu ñu àdduna moyloo yàlla état lu mu digal lu mu doon doon yoon su ñu naree mooy yàlla dañuy bañ waaye nag xam nañu ne état du bañ askanam mais nag nit ñi defaat tere attention ci diine ak fi mu toll ci jamono ak ni ko nit ñi tegee bët. jërëjëf Baye demb maanaam boo xoolee ñu ngi waaj a génn ci weer bi nga xam ni weeru màgg la ci jullit ñi muy weeru koor nga xam ni dina am lu bari loo xamante ni dina ko jàngal doomu aadama yi njàngale yooyu bëggoon naa nga ñëw ci ak jaam ñi nga xam ni ñoo doon tàggatu ci weer woowu noonu déjà weer wi dem na fi mu ne at mi dese nañu fukki weer ak benn weer wi doog a ñëwaat ci biir fukki weer ak ben yoy julit ñi nga xamne ño doon jëmmal weer wi loo leen di dénk ci biir weeru koor bi weeru ngëneel la waye itam weeru tarbiya la dafa am lum la doon jangal ci maandu ci jëm ji njàng la bu weex tal la bo xamanteni doomu bi ni la wara mel mu neex boromam amana nak formation bobu soko defé ci weer bi bu mu jeex dañu ñaan yalla comme ça su weer bi jàllee itam yow jikko yu rafet yooyu nga xam ne moom nga meloo woon ci weeru koor bi ala kulli haal li gënal yàlla laa wax de yow da nga war a da nga war a continuer formation boobu parce que tey saayir yeeg ku bëgg a def dara nga def formation bi ba réussir soo demee di servir la nga defee woon formation bi su fekkee ne defatoo ko gon yow fa ngay servir dañ la fay dàq gon la nga amee ca formation ba loolu ngay continuer ci ci service bi loolu moo nekkoon li nga xam ne moom moo gën a rafet ñu tollu ci jamono boo xamante nii nag nit ñi dañoo war a yeewu parce que Muhammad dafa waxoon ne li ëpp ci nit ñi dañuy nelaw waaye dee moo leen di yee léegi nit ki nañ lay def ba dee Cheikh Ahmadou Bamba bi dégg wax nee na gon dee leen balaa balaa dee di ñëw gon nit ki nañ la war a deeyee balaa dee di ñëw parce que ku ku dee balaa dee di ñëw di nga yeewu gon léegi nañ la ñu mën a yeewu est que dañuy nettali waxu yàlla yi ci téere bi rek ñu dégg ko yeewu parce que demeetut noonu kon nak amana li li meuna tax nit ki yeewu deug koor gi dafa am système bo xamanteni mom la jàngale système bobu nak su fekkee ni jang bi mot na ci yow koor gi su passé yow da nga continuer si jikko yu rafet wa waaw euh manam ba xam koor gi nga xam ni mo jàngale yi mel nonu mom bu ana kan moy ki nga xam ni mo ñu wara a teunk ci doxalin woowu ndax doomu adama man nay bëgg lu baax xemmeem ko lool ba koo def waaye nag dañuy gis ni seytaane dafa bëri doole nañ la ñuy def nag ba mucc ci seytaane boobu ndax nee nañ ci weeru koor wi dañ koy tënk waaye buñ génnee ci weer ñu dégg ne kon dañ koy tinki kon jaam bi nga xam ne moo bëgg jaamu boroomam kéem nu mu waree ana moom nan la mën a def ba mucc ci seytaane woogu ba sax ci lim doon tàggatu ci biir weeru koor wi alhamdulilah alhamdulilah comme soo xoolee jamono ni mu toll ñun jullit ni ay waay toppe lañ ku ne am na kër goo visé nga topp ko mu doon sa kilifa léegi nag kilifa boobu même soo jëmee ci alxuraan sax yàlla wax na ne da wutal kilifa wutal wasila léegi nag wasila boobu même weeru koor bi su fekkee ne passé na yow wasila boobu lépp lu la lépp lu la lëntoon ci weeru koor bi ak ak benn pas-pas boo xamante nii moom war nga koo yo yo njoxal su wéeru koor bi passé wasila boobu su motee wasila bu mot wasila toujours day gën a teŋal buum bi nga xamanteni ni nga amé woon ci tarbiya parce que comme wéru koor bi tarbiya la yow wasila bi toujours ci ci maxaama tarbiya lay tok ak yow waaw ci wéru koor bi passé ku ci am kilifa bu mot kilifa do xarab wér bi wér bi mu dik ak mu ñaka dik mel nga ni neex yalla suñu borom non lu kon il faut nga am kilifa bu mot kilifa bo xamanteni ni kot moko ñor yow mi ko fexi aussi yalla kesse mo la ñor ñoñu Nek nañ ñoo xamanteni ni bi di soppi ci seen pas dara mu nek fi ak mu ñak fee ne alhamdullilah ah waaw bay dem ba tuddu nga fi turu kilifa manam boko tuddé rek tarixa dugg na ci nonu hmm. euh ana lan moy njariñu tarixa tay ji ni ci ki nga xam mu ngi woté wu julit la ndax bu fekkee julit la ak koor ak natt asaka ak xet li sharia digle hmm. amana yow mën nga ko bala nga wut ci serigne bobu ana mom lan la lay dolli lu ëpp doole sax amaan na yooyu nga bàyyi ginnaaw ba tax nga sóobu ci moom. alhamdulilah waaw alhamdulilah kilifa moom suñ ko waxee comme jamono bi ñu toll nii Sénégal da ci gën a bëri ku ci am kilifa kilifa boobu ci tariixa la ne. waaw te tariixa nag comme ni ñu ko misaalee am na sang bu tedd bu ci wax El Hadji Malick dafa wax ni tariixa bari na waaye nag tariixa yëpp kulluhum ila rahmaani ci yàlla lañ jëm kon tariixa yoon la rek mooy yoon boo tànn ngir dem ci sa borom. loolu moo mu ngi junjaat ne doomu aadama bi far force dem ci boroomam mooy premier but am mu tànn nag yoon léegi nag ci yoon yooyu mu tànn nag mooy tariixa léegi nag bopp tariixa boo dem dafa fekk kilifa te kilifa boobu kilifa boobu nag lan moo nekk wareefam digganteem ak ki ko fekk si ndax yow danga war a jëlee ci tariixa bi lu gën julli lu gën koor lu gën azaka lu gën aji màkka ndax loolu mën nañ koo jëlee ci tariixa waaw parce tariixa mën nga faa jële yàlla du yàlla mën nga faa amee yàlla te yàlla moo gën a foor julli moo gën a foor euh, aji màkka moo gën a foor koor moo gën a foor lépp te loolu ci kilifa lañ ko mën a amee xam-xam bi ngay am pour yàlla gërëm la ci doomu aadama nga ko mën a amee ci nit moo tax kilifa mënu ñàkk lan lañu waxoon ni yonent yi suñ fi jógee boroom xam-xam yi ñooy donn yonent yi te boroom xam-xam yi ay nit la ñuy doon waxuñ ne su fi yonent yi jógee téere yi ñoo leen di doon xam nga benn aaya boobu wàccul mais am nañ amu sikk ne dañu wax ne su fi yonent yi jógee ñu ne boroom xam-xam yi ñooy ñooy doon yonent mais te boroom xam yi dañoo war a jàng téere mais su fekkoon ne gon mbir mi ci téere la rek dañu wax ne boroom xam-xam yi suñ fi jógee téere moo leen di doon mais déedéet nit mooy doon nit moo leen doon kon nit kooku soo ko toppee sa kilifa lay doon te kilifa boobu nag jamono bi ñu toll nii message bi ñuy lancé waa jamono mooy képp ku ci am kilifa te yàlla rek tax ngel la laaj ko di la tax a jóg muy yàlla yàlla lu am la te jàmbi daf ko war a am su lu su fekkee am na ko na la ko jox su fekkee amu ko sëriñ bi gënul for sa say waajur te wonoon nga say waajur ginnaaw wuti sëriñ li nga wuti ci sëñ bi kay soo ko mënul am est-ce que comme Rousseau woon say waajur ginnaaw wuti ko mais amal ak ak sëriñ bi jàmm rek coloré moom to nga wuti ko wuti keneen su fekkee tiijaan nga si amee tiijaan bi nga xam ne mooy sa kilifa si ñaata sëriñ la woon ginnaaw nii nu ngi lim naan ay fanweer ak ñett yépp dem na ci ñoom wër li muy wër ñu yoruñ ko mu won leen ginnaaw ci njëkk ak teraanga soo ñëwee ci yoonu murit maam Cheikh Ahmadou maam Cheikh Ibrahima Fall ñaata sëriñ la la woon ginnaaw est ce que wax na leen kaddu yu ñaaw mais la doonu doon wër su ñëwee ci siñ boobu te fekk ko fa mais mu wonaat ko ginnaaw ci njëkk ak teraanga dem wuti ko léegi nag ñun tey comme soobu nañu yoon tariixa ngir yàlla te est ce que sax biñ ñëwee est ce que yàlla lañ laaj est ce que ñun biñ sooboo ci tariixa jamono ñu toll nii est ce que ñu bëri ñu dugg ci tariixa est ce que yàlla lañ laaj si parce que tariixa moom la ko waraloon moomu yàlla rek nga laaj si. kilifa bi nga fekk am ko nga jaanteeg moom ba mu wóolu la mu eggale la ci yàlla loolu mooy ma xamante ne yoon moom egg lañ ca xam. jërëjëf Baye Demba kàddu yi leer na am na solo waaw ñu bàyyi la nga wàcce sa kàddu yu mujj tàggoog askan wi. waaw salaamaaleykum askan bi waaw ñu ngi tuub di jéglu nag uh, ci kàddu yi wax ne ay kàddu leeral la woon rek uh, fi jamono toll uh, ñu waxoon ne njeexantilu koor bi comme defoon nañu émission ci ubbi bi. jaxantilu koor bi itam nu ne nag dañ soñaat askan bi rek pas-pas bi ñu amee woon jaamu yàlla ñu bañ cee bay dara te continuer ko ñun itam ñu doon ay ndaw yu bari euh, di yëngu nag ci yoon yoon bi nekk ci yoonu murit ñu askane lañu ci yàlla yàlla yi euh, suñu kilifa di Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru xalifaam di El Hadji Kéba Cissé ñuy sant suñu sang yu tedd yépp nga xam ne kuluhum dañuy bañ li képp koo xamante ni rek amee nga gërëm ci Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Daaru bégg nañ la bu baax ci jël laa ilaha illallah jërëjëfati jërëjëfati jërëjëf Baye Demba kon euh, askan wi ma ngi noonu li lañ amoon ci liñ leen indil seen euh, jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen émission incha allah jërë ngeen